Mesdames, Messieurs, bonjour. Je la lecture du communiqué numéro 100 de ce mardi 9 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1402 tests réalisés, 89 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8 pour cent. Les cas positifs sont répartis comme suit. 71 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne. 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Gueule Tapée 1 Plateau 1 Liberté 6 1 Dieuppeul 1 Cité Domaine 1 Cité Keur Damel 1 Guédiawaye 1 Pikine 1 Ouakam 1 et Touba 6 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 12 cas graves sont pris en dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 4516 cas ont été déclarés positifs, dont 2809 guéris, 52 décédés et donc 1654 sous traitement.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 di ay cas communautaire ñaar ci Caaroy benn ci Gueule benn ci Plateau benn ci Liberté 6 benn ci Jëppal benn ci sité Domaine benn ci Kër Damel benn ci Géejawaay benn ci pikin benn ci Wakam ak juróom benn ci tuuba téeméer ak fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak ñaari cas si suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñu koy wax taas ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk ba Sénégal waññi na ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom benn cas yu positif ñaari junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent ñoo ci wër juróom fukk ak ñaar ñàkk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñeent malade yoo xam ne ñu ngi leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm